ñu joxe seen gànnaar ndax ñu yaatu fam nañu samuur yi ci réew yi soose topp gaabang boole koog baama siise takka ba ñu lekke laañse def ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll Fuuta Tooro ñoo del rey nag almaami Abdu Bukar seen chaîne bi di xam sam réew TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar daje woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent e, waaye du tëb rek ñëw indi xeex ba xare ba déedéet faaw ñu fàttali kan mooy Lat Joor ak fi mu jaar ci tënk ba egsi ci bisub àllarba boobu nga xamante ni ci la daanu ca déqale la jor di la tir job mu ngi juddu ci atum jooni ak fuk ñetti témèr ak ñeen fukk ak ñaar ci kër amadou yalla bu di sa xewar soxna bay job wajuram bu jigen di linger ngone la tir fall li ñuy wax ni kilifa yàllaa koy tànn mën nañu wax ni Lat Joor loolu yi moo ko dal ndax Lat Joor ci at yu néew diggante fukki at ak juróom-ñett walla fukki at ak juróom-ñaar ak ñaar fukki at ca la taxaw xam li mu doon ndax bi ko dàmmeel ma joojo di def barget di ko fal barget booba mu ngi watu jubbi njóobeen wax na ñi dameel majoojo bi mu faloo dameel te faloon Lat Joor barget tukki bu mu doon amal la ànd ca ba ñu demee ba ngiig faal wax nañu di waa ngiig ñoo doon wax ni xanaa du ngone si ak jubbi njóobeenam yi mom lañu def muy barget wax ji ñulug na la jor ba taxna ba mu delu see mu dem ci wajurum sa xewal soxna mbay niko dama bëgg nga magal ma ba ñuy waaj ba ci xam naan boru cilmaxa dammeel ma jojo gis ni geej yi kët da mel ni dañuy dajale mbolo taxat na tere lël ba ba ñu toxale ko fa yóbbu ko kokki ba ñu demee kokki sëñ kokki jox leen ay toolam yu ñuy wax cuxur ñu lël fa dammeel maajoojo yónnee ci sëñ kokki ngir mu gàntal lël boobee la mu doon sàkku ba mu amul jog na dem songi len xex ak la dior muy ci bobu nga xamanteni la dior daf ci am ndab la ko dale ci xare bobu nak ndax ci déwén sa di junni ak atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett ci njeexte la mom la dior ngone la tir bayiko na kokki ñëw kajoor ñëw googee moo juróon xareb ngol-ngol ba nga xamante ni ca la faat tubaab yu bare bare bari ndax soldaaru tubaab sa téeméeri soldaar la woon ak ñeent fukk muy ñoñ dammeel maajoojo ak ñoñ samba maram xey ma nga xamanteni mom mom mom lañ wax ni moo ni won tubaab wala gi bayiko won gore muy muy la prat ak gi bayiko won dar ak gi mu fekkon jambour te ñom ñep di ñetti xare yoy bi ñu déggee ni la jor dugat na jor dañu doon ñew ngir jàppale si Laurent ba nga xamanteni mo ngi doon tabax ab redoute keuruk soldar ci ngiis waaye Samba Maram xey mo len ni jëru sama ñooñ ak ñooñ ma jojo ak capitaine Laurent mi ak katam yi bu nu andé la jor du doy ñu waaj fekki labba borom ngol ngol téeméer lañu woon ak ñeent fukk ba ñu demee Lat Joor rey na ca ñii nee téeméer ak ñett ñii ni téeméer ak fukk dammel ma joojo daw dellu siwaat ngi gis Samba Maram Xay daw dem Póotu nga xamante ni Samba Maram Xay foofee ca Póotu lañ ko jële yóbbu ko Ndar daf ko li ñuy wax garde à vue waaw ndax wax ni daf leen war moo leen dugal ci lii ab kompaloo la ca la ñu ko jël yóbbu ko gore tëj ko ba ca la faatoo kon Lat Joor yàgg naa defuk njàmbaar ndax ci njeexteel décembre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett la def njàmbaar googu fukki fan ak ñaar ci weeru janvier mu dajawaat ak tubaab yi ca Loro tubaab yi jëfandikoo ngànnaay yoo xamante ni waa Kajoor xamuñu ko woon dañ ko doon tere Europe ba faatal ko ñu baree bari ci la Lat bàyyi ko Kajoor dem Saalum ca Maba Jaxu Ba ci gàttal ba mu fa demee Pinet-Laprade song na Maba Jaxu Ba ci fanweeri fan ci weeru novembre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom muy xeexu Paoskoto wala Paate Badiat Lat Joor doonoon liet naab tafsir Maba Jaxu Ba ñu bom tubaab yi ndax ñoom tubaab yi am na fu ñuy bind wax ni ñoo am ndam ci jullit yi waaye déedéet ndax Pinet-Laprade mënut a jóge Ndar ak li mu àndaloon ci soldaar ñëw song Maba Jaxu Ba xeex bi jeexut Maba dawut Maba daanuwut mu won ko gannaaw dem Kaolack fekk jam nañu ko ci li ñuy wax mbaggum càmmooñam mu ànd kilifay tubaab ya daw dem làqut yi ca seen kër googee nekkoon Kaolack kon labba boroom daarnde yàgg naa am ndam fi mu nekkoon ci Saalum gannaaw xare boobu ñaari at lañ ci teg ñu xeex somb maba daanu ñu teg ci ñaari at ci 1869 Lat Joor dellu si at Kajoor ba gouverneur pinet prat fal ko def ko chef de canton bu Guet mu nekk Sagata waaye booba ay pexe won stratégie la won mom lamu mu doon fexe rek moy jot ci ndamelu kayor gi jamono yooyu am na yàlla buñ ñu doon wax Cheikh Ahmadou Ba mu bayiko won fouta wura madiou da jor Joor ak mom di xex ak tuwab tuwab yi folliko da jor bomat boomaat leen ca mexe spaye ca na mu leen defoon ngol-ngol mu defaat leen ko toroxal leen bom leen dellu saalum ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak benn

Anda na nyom coow amul jafe-jafe amul juróom-ñetti at ci fukki fan ci satun bar atum junni ak juróom-ñetti témèr ak juróom-ñaar fukk ak ben ñom tuba bi ñu sakku ci la jor ni ko dañu bëgg jëlé yoonu saxar bi ndakaaru ba yobbu ko ndar gouverneur yebal buel moxdat mu ñëw kër amadu Yàlla ci boobu ma wax fukki fan ak ci fukki fan ci weeru sattumbar ñu def benn dëlante ab convention diggante Lat ak gouverneur la ñu juboo ngir yoonu saxaar bi jaar fi Boyel Moxdar moo xaatim moo signé ci turu gouverneur xalima jaxate kala signé ci turu Lat Joor teg cachet bi Lat Joor tampon ak teew ci teewaayu Lat Joor Buel Magdad dem Ndar yóbbul ko gouverneur mu xool ko ñaari fan gannaaw ba fukki fan ak ñaar ci wari sattunbar Buel Magdad dellu siwaat kër Amadou Yàlla ngir ñu mottali la ca desoon ba ñu ko mottalee bindaat ko it ba ñu noppee xalima jaxate kala mos ci yeen Lat Joor Buel

liggéeyu raay bi boobee nag ca la labba boroom maalaw ñu ni ko lu mu wund mu ni lu mu réyee na ko mën a gore ñu leen daal yoon wi dootu mën a jaar kajoor muy raay bi loole taxoon na gouverneur waajal ab xare ñu ñëw wañ loxoom la Joor waaye moom du ku ñuy wañ loxoom ndax bind na gouverneur ab leetar di wax ak moom ca mbirum raay bi ngir du fi jaar waaye la ma ci gën a jàpp rek mooy ba muy jeexal nee na ko dama bëgg nga ubbi sa nopp yi yow gouverneur soo mënta jël gileem ak sëfam jaarale ko ci bën bënu pusa doo jaarale raay bi fii nga xamante ni bii mooy kajoor loole nag ba mu ko waxee gouverneur am na lu mu bind tasaare ko ci kajoor ñu taf ko fu ne ngir muy wax waa kajoor Lat Joor baaxul bu leen ko topp yoonu saxaar gi am koom la leen di indil da leen di suqali seenu mbéy day ñoŋ seenu càmm day ñoŋ seenu yaxantu day ñoŋ te saa bu seen mbéy jeexee walla seenu càmm ngeen bëgg a jaay di ngeen ko mën a sëf ci saxaar gi wax ca wax yoo xamante ni da doon boole Lat ak waa Kajoor waaye yemu ca doomu ndey Lat Joor di Sàmba Yaaya nga xamante ni Debba Sukka mi mi ndeyam ak Ngoone Latiir mi ndey Lat Joor ñoo bokk lépp tubaab yi fal ko ñu Lat Joor folli nañu la palog Samba Yaaya yàggul ndax am na jarbaatub Lat Joor boobu bi ñu falee Samba Yaaya fipp woon na muy Samba bi Xule ji Mbooj ngir ñàkk a ànd ci falu Samba Yaaya Lat itam fippu dal di dem Jolof léeg-léeg Jolof léeg-léeg Bawol léeg-léeg Saalum moo tax ñi bëgg a yàq derub Lat Joor di wax atum wër-wërloo ba Lat Joor wër-wërloowul woon ak ñiy wax naan Lat Joor dafa daw daw mooy ki ñu dàq ku daw doo dellu si ku ni siiwa mucc ñu di la dàq da ngay daw teg sa njëkkay bërëj raw waaye mënoo ni nit ki dafa daw tey dama ko dàq mu daw tey bu subaa bu ñëw songat ma Lat Joor xare la amoon muy li tubaab yi wax stratégie de guerre guerre yàlla doon def di songu di dellu gannaaw loolu metti woon na tubaab yi ba taxoon ñu def ay pexe ngir tëj buntu Bawol tëj buntu Njàmbur tëj buntu Jolof ba dootul am fu muy dugg fu muy làqu wala fu muy nekk di song tubaab yi di delluwaat damay wax ni man Lat Joor li ma gën a neex ci moom mooy tubaab yi li ñu koy bañ bañ li ñu koy kontar kontar dameel yi ku ci mel ni dameel euh, Makoddu nga xamante ni mooy bàyyu Birima Latir ngo Birima Ngoone Latir moom Birima moomu ak bàyyam ma kodd ba ci euh, ma joojo ci sàmba yaaya ba ci sàmbalaw bi xuree ji mbóoj damay gis tubaab yi bu ñuy bind ci ñoom di leen ŋàññ di leen wooye ay naankatub ñollu di leen wooye ñu doy waar ñuy lël di jël alali jàmbur yi di leen wax ay ragal amuñu fit ku ci mel ni Majoojo bañ koy jàppale te saa bu Lat Joor bu Lat Joor jubee mu daw ak yu mel noonu ñu di leen euh, dëkkal ci néeg yoo xamante ni duñ ci dëkkal Lat Joor mukk damaa gis Lat saa bu ñuy bind ci moom dañu naan sunu noonu bu mag bi ki nu noonu diirub ñaar fukki at ak juróom ki nuy xeex ki bañ France yu mel noonu rek lañuy wax ci moom waaye yëfu ñàkk fayda wala luñ ko mën a xase gisuma fu ko tubaab yi di bind ci moom te it li ñu bind ci moom ci li ko dale ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar muy 1862 ba ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn muy bi mu daanoo ci déqale li tubaab yi bind ci moom yépp su fekkee yoruma lépp li ci ëpp mi ngeeg man Tiri bi ngeen jàkkaar lool muy mboorum la jor bu ko yàlla dogalee dana génn balaa yàgg li tubaab yi bind ci la jor la ko dale ci at yooyu ma wax ba nii mu daanu ba gannaaw bu mu daanoo sax ya ca doon xew ñu di ko bind lépp mu ngi ci téere bii kon man na maa wax ni la presse coloniale li ñu bind ci la jor lépp ngeeg man waaye boo demee ci biir ñi tubaab yi doon jàppale léeg-léeg ñu dal ci seen kaw ku ci mel ni ni ma ko waxee woon léegi Majoojo Samba Yaaya nga xamante ni Samba Yaaya gouverneur ngi wax ni bi ma bi ma ko falee mu ñëw ndar bi ma koy feetal dama dem indi siro ak naan gu saf suukar nee bima bi ma ko mu ne ma delloo ko te indil mum ñoll li tàngal sama yaram li samay maam daan naan yooyu yëpp lam ci jublu ma ngay wane ni ab naankatub ñoll la ma ngay sabote jëwriñ mbul naan ma nga takk ay ndomba ba yaram yep fees ak ay légitam ak ay kenn xamut waaye Lat jor moom yooyu musuma gis fu tubaab yi bind dëkkale ko ci néeg yooyu xanaa kay mu dajeek ñoom rayal leen lu bari ñu weddi ko ni tuuti la ñu te loolu dana leeri ci épisode yi ñëw ci xeexu déqale bu dajeek Lat Joor ni rayal nañ ko téeméer Lat Joor nu benn walla ñaar yu mel noonu daal la ñuy bind ci moom waaye loolu livre bii ngeen gis incha rabbi bu génnee loolu yëpp dina leer mbokk yi kon xaaj bu njëkk bi fii laa koy yemale doon leen xamale rek ak jàmbaar ji nga xamante ni mooy Lat Joor Ngoone Latiir Jóob kon mbokk yi da ngeen nuy topp ci ñaareelu xaaj bi jëm ci xareb deqale boobu gannaaw ba nu leen tënkalee kan moo doon Lat Joor Ngoone Latiir Jóob ñu di leen sant di leen gërëm te di leen ñaan ngeen abone rek ci seen chaîne bi ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen man koo jot ndax nit ki bu xamul démbam du xam nan lay taxawoo tayam seen chaîne bi nag dafa ànd ak yéen ngir di leen xamal seen démb kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje ci xaaj bi ci topp. waaye français nan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàtt ay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu yi ci soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma farañse ñoo gën lam de julbeere ñooro rey nag doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar waaye waraante lan na góor Sénégal ñi dugal ñu dugal Sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri cere soose yóbbu gabang bokkoog baraama siise tala kapoor ba ñi lekke imbulaañse daf ko ci biir nag la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu nuy seetaan dellu siwaat nanu ci mbirum Lat Joor Latiir Jóob jëm ci xeex bi nga xamante ni xeex na ko ak tubaab bi te ñàkk ca bakkanam ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom-benn ci deqali xaaj bu njëkk bi xamaloon nañ leen Lat ci tënk ba ni mu juboo woon tubaab yi ci yoonu saxaar bi gannaaw bi mu ni saxaar loolu mënatu nekk waxoon naa leen ni bi loolu amee ci la ko tubaab yi folli fal doomi ndeyam di samba yaaya mi nga xamante ni bii bi mu faloo daf ni nañ koy wooye amari ngóone maamam di amari ngóone ndeele kumba aw turam la jël ñu di ko wooye dameel amari ngóone deux bi nga xamante ni la jor nag mi ngi def bu nekkee bawol songu kajoor ndefarum raay bi tuwaab yi ak sàmba yaay mañ fa teg génnaat dem jolof bu songee génnaat lan la tuwaab yi def dañoo dem ci ca yaasin joor galo gànna mi nga xamante ni moo doon teeñu bawol ni ko dañoo bëgg xaatibanteeg yow ab dëlante boo xamante ni bii lañ ci maanaam bokk na ca poñ yañ ko wax mooy ndombak tànk gii di teeñ ci bawol kenn dootu ko takk ku santul faal te ci sa faal lay doon maanaam sa njaboot ñoo koy donnante gần nào yow say gần nào ñoom say sët bi nga xamante ni bii nangul na leen loolu ñu xamal ko it ni ko dammeel teeñ dootul am dammeel ca kajoor lay yem yilif kajoor teeñ mooy yilif bawol waaye poñ ba leen taxoon a jóg nag mooy waaye nag bul mayeti Lat mu dugg Bawol mu signal leen ko waaye délégation boobu ñu yebaloon René Servitus bi nga xamante ni moo doon gouverneur yebal leen ba ñu signé traité ba muy dëalante ba bay ñibbi Lat daq na leen ndax dañ ci doon dafa bokkoon ci dëalante bi itam ni ñoom tubaab yi bu ñu soxlaay fas yu ñuy jënd ci Bawol na leen teeñ ci Yaasin Joor Galogaan jàppale waaye bañ fa jógee di dem Ndar Lat rëgët na leen daq na leen ba ñoom ñu bind ko wax ni seen gaawaayu fos ya moo leen musal ci Lat Joor kon tëj nañu buntu Bawol njambur nga xamanteni bu ñëk ci walu la bokkon gannaaw bi la bok ci ci kajor tam mëno joggé kajor dem bawol to jaaro njambur ñu daldi waxante ak ibrahima ndjay ñiko dañu lay jox nomb ak tank bur njambur waxnañu sax ni wajurum Maysa Sele walla Sele Ndiaye moom lañ ko waqanteeloon waaye mu wàcc ab liggéey ñu fal Ibrahima njaay def ko buur Njàmbur te Njàmbur jaraaf Njàmbur la daan moom it mu siñanteeg ñoom ab dëlante ab traité jébbal leen Njàmbur ngir France di ko aar muy li wax protectorat waaye boo demee ca la ñu xaatibante la waxoon teeñ ci Yaasin Joor Galo Gànna te mooy ndomb ak tànk gi sa ñooñ lay yem sa yow say doom say sët Ibrahima Njaay buur njàmbur itam loolu lañu ko wax waaye la leen taxoon a jóg mooy signal la nuy sunub noon la joor dootul dugg njàmbur mu siñeel leen ko kon tëj nañu mbuntum njàmbur itam Samba Yaaya ak palam yàggut ay weer rekk la ci weeru ut ci at moomu di junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett tubaab yi folli fal Sàmba Law ba Xureeja Mbooj ñi nga xamante ni waajuramu mu jigéen di Xureeja Mbooj mook Lat Joor ñoo bokk Linguère Ngoni Latir Fall jarbaatu Lat Joor boobu itam nga xamante ni moog nijaayam ñoo fëpp ñoo fippu te tubaab bi doon ko topp dot ba ni mu ñëwee ndar jébbale ay ngànnaayam ñu ni ko nag dañ lay may nga dem doon ab ayoor rek toog biir kajoor moom moomee moom lañu ñu mujj fal Damel ci weeru août at moom yi ma wax mu siñenteeg ñoom ab dëlante ji ab traité ni leen sama nijaay Lat Joor dootul dugg Kajoor maanaam bokk na ca euh, lañu siyante ak sambalaw bi xuree moy mooy lat jor dootul dugg kajoor kon tere nañ ko kajoor tere ko bool tele ko tere ko itam fi nga xamanteni bi moy jolof jolof mo muju ndax ci atum junni ak jurom ñetti témèr ak jurom ñett fukk ak jurom 1860 1885 ci lañu ñu ab dëlante muy kon muy ab traité ak Alburi Seyne bu buur Jolof traité bobu sax wax nañu ni euh, Alburi andu ci won waye nee nañu jamburi Jolof yi ñoko ni dal la Joor dootu fi duggu signal traité bi kon ñom ngir ndar la jor Joor tëjal nañ ko buntu bol dot fa mëna duggu dugg ko buntu Jolof tëjal ko buntu Njaambur tëjal ko buntu Kajoor gi nga xamanteni moko yiri ko waye li lay won ni tuwab ay warkat lañu lu bëgg ci yow buñ ko xësee am daldi dugal ay wor seen politique boobu ñu doon doxal damay fekk ay bokk nga tàggale leen ngir mën a dij sa nguur muy diviser pour régner loolu moom lañ doon jëfandikoo ndax dëlante yooyu ñu def tàmbalee ko ci teeñ ci Yacine Dior Gallo mañ ko ni woon yaa deeti doon teeñ sa gannaaw say doom ak say sët juróom-ñaari at lañ ca teg ñu folli ko rey calaw bi toppoon ci moom dàq jafe ba bañ ko follee ndax dañoo fal doomam wala sëtam déedéet tanooru goñ bi nga xamante ni jeng la sant moom lañu fal def ko teeñ mu wuutu ci Yacine joor Gallo Ganna kon lañ ko waxoon deñ na buur njàmbur moom nekk na fa ba dem retraite waaye doomam ya ko wuutu woon dañoo mujj folli leen jël Samba Khari Cissé def ko mu doon chef de province bob Njàmbur jarbaatub la Joor bi nga xamanteni moy samba Samba Lawbe Khourédia Mbodj ba mu falo, ñu ni dañ koy jappalé mu song Alburi ñu xex ci Gile ni ko ya togn ba mu xe ba xeex ba jeexee te Alburi bom ko topp ko ba bëgg dugg Kajoor ñoom tubaab bi ñoo ni danoo wax buur ba Jolof ni ko bul song Kajoor dellul Jolof danañu ko lijjanti ñu ni ndax booba bëgguñu mu song Kajoor ngir yàq liggéeyu raay bi ñoom lu ñuy def lu ne rek seen mbir seen intérêt lañ cay xool bañ ko nee dellul ndax nee nañu bu songee kajoor liggéey raay bi mën naa yàqu dañoo teg ay daan jarbaatu Lat Joor boobu di dammeel sàmbalaw bi xuree jëmbooj ni ko yaa tooñ da ngay fay te fekk na ba muy siñante ñoom dëlante ba Lat Joor la mu siñante woon ak tubaab yi ci kër Amadou Yàlla bañ ko fa jëlee tàmbalee par tàmbalee ca Samba Yaaya Amari Ngoone 2 dañoo soppi deux ba tëbal la leen arrangé lu Lat Joor bañoon lu ne ñu ni ko signal nu ko mu signé ko bañ ko follee fal jarbaatub Lat Joor Samba Law ba xuree ba muy signante ñoom deux ba tëba loolu nijaayam bañoon dañ ko caa dugal xamal ko ni ko yaxantukat yi muy commerçant tubaab yi fi nekk da nga leen di ar aar seeni marchandise liggéeyub raay bi da ngay da ngay joxe mbooloo muy ñëw di liggéey te mbooloo moomu gouverneur mooy xool la ko neex moom la leen di fay te ba ñuy siñanteeg la jor waxante woon nañu moom pay gi nga xamante ni moom la ñuy fay liggéeykat yi nga xamante ni la jor leen di joxe ak seenug lekk ak yëpp waaye ñu mujj ñi bi ñuy signante ak ñoom la leen arrangé rek la ñuy moom Dameel Sambalaw bi Xuree Jëmbooj loolee mu xaatibante woon muy aar traitant yi yaxantukat yi commerçant tubaab yi bañ ko tegee daan yooyu nag ci la fippu dal di dal ci kaw commerçant yi tubaab yooyu di leen laaj galak ñoom tubaab yi sax wax nañu ni ña ko euh, jëfloo loolu xiirtal ko ca ñu ay kilifa lañ yu nekk euh, Kajoor yu nu miin xam leen ñoo ko wax ni ko mbul fay daan yooyu loolu moo tax ba mu demee Tiwaawoon gouverneur yëg ni ma ngay gundu xataal tubaab yi ca la yeble won ngir ñu waxtaan ak mom mu fippu ba ñu faat ko ci juroom benn fan ci wéru octobre ci atum junni ak juroom ñett témèr ak juroom ñett fukk ak juroom benn digganteem ak nijaayam la jor ñaar fukki fan la ak benn kon gis nañu ni tey ci Yaasin buur njàmbur ak sàmbalaw ba xuree jëmbooj la tubaab ya xaati woon ak ñoom fii la mujj kon Lat Joor tëjal nañ ko bunt yooyu ma leen wax yépp muy Kajoor di Jolof di bawol ak njàmbur waaye teewul njàmbaar ga nekkoon ci moom mu xaati goñ rek la waxoon ni raay bi du jaar kajoor di ko xeex mu wéyal loole ndax ñoom tubaab yi dem nañ ba nungul Lat danañu ci ñëw ci xaaj yi ci kanam lëjal gu mu leen lëjaloon nungul ko itam ak jàmbaaram ndax ba ci xeexub deqale bi bi Lat Joor daanoo danañu ci ñëw ci xaaj bi ñëw ba ñu demee Ndar gannaaw bi ñu dégg ni Lat faatuwut ñoom tubaab yi def nañ ci ñoom tiitaange joo xamante ni wax nañu ni danoo mujj bind ci journal bu ñuy wax le moniteur du Sénégal ngir weddi xibaar boobu nga xamante ni indi woon na njaqare lool mooy bi ñu déggee ni la jor faatuwut kon tubaab yi musuñoo ñime Lat Joor ndax bañkat yi nga xamante ni ñoo nekkoon fii ci Afrique de l'Est Lat Joor ci faat ci ay tubaab man de xawma beneen bañkat bu faat lu toll noonu ci ay tubaab mom nak ba ci sun biirum manam ñun sénégalais yi gis naa ni am na li tubaab di wax campagne de dénigration maanaam de dénigrer la Joor am na ndax gis naa ci lënd muy internet bi ñuy wax ni Lat Joor da doon daw ñu fetal ko balub gannaaw a ko rey gis naa sax ci Facebook ku doon wax ni loolu ay këyit yu nekk Ifan bind nañ ko waaye moom ma ko indi woon ci Facebook bi daa mujj daw dindi ko ndax loolu wérut ndax dama gis réew yëpp seen yi réew dañu leen di bakk di leen kañ waaye Lat mii moom am nañu jóg bëgg weddi ak njàmbaaram waaye loolu moom fàddu na ndax njiitu réew a ko def héros national loolu moom kenn mënatu ci dara waaye jàmbaar yi fi nekkoon doon ay bañkat ñi di xeex ngir l'islam dafa jaadu kenn ku nekk ñu delloo la sa wàccuwaay jàmbaar yi nga xamante ni ñoo fi téye l'islam tey ba ñu fekk ko fi seen bakkan jaraloon leen l'islam ku ci mel ni góor yàlla bu mag ba El haji Omar yu Tall tafsir ma ba jaxu ba Cheikhu Ahmadou Tall doomam doomi El Hadji Omar Cheikh Ahmadou Ba mi xeex ak Lat ak tubaab yi ca Samba Sadio ku ci mel ni Samba Diadama Mohamed Lamine Dramé góor yàlla yooyu nañu leen delloo seen wàccuwaay waaye bañkat yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon itam tubaab bi ñëw nii dañu leen di not ñu taxaw ñoom it nañ leen jox seen wàccuwaay moo xam dammel la woon moo xam teeñ la woon moo xam buur Saalum la woon wala buur Siin walla barak ca waalo ñoom ñooñ ñëpp dañ leen a war a màggal jële fi turi tubaab yi ñu tuddee barab yi ci Sénégal ak mbedd yi ak yoon yi ñoom ñooñee ñu tuddee leen ko jàmbaar jii di Lat nag moom seddu na ndax ci nguurug abdu Diouf téeméeri at gannaaw ba mu daanoo lañ ko def héros national at moomu nga xamante ni ci la Lat Joor daanu atum junni ak juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett tën bii nekk ndar bi bii lakkatub dëkk bii reykatu nit bii di feder bu ci la def ab tënam at moomu Lat Joor daanu ñu ñëw taxawal feder bu ca Ndar te muy lu fi war a jóge kon mbokk yi e, ñaari xaaj yi yëpp maa ngi melal Lat lu jiitu may dugg ci xare bi kon ñetteelu xaaj bi incha allah ci la ñuy ñëw nag ci xare bi déqale tubaab yi nañu waajee ca Ndar jaar jàjj fekk fa Demba Waar ba Lawbe Buri ak Ibra Fatim Sarr ñu waajal seenub xare ànd ak tubaab yi ba ñu ñëw cil maxa ba nañu demee fa nga xamante ni mooy déqale ak la ca xew moom lañ leen fas yéene indil ci ñetteelu xaaj bi ñeenteelu xaaj bi nga xamante ni bii nag mooy mujj di quatrième épisode bi capitaine Valois mi nga xamanteni ni moo jiite woon xare ba balad jor bi xare bi jeexee ca li tubaab di wax ca toolub xare ba muy champ de bataille ba fa la binde rapport bi nga xamanteni bi moom lañ leen fas indil ci ñeenteelu xaaj ba ndax loo xam-xam samba wala demba mu gën laa xam boppam dama jàpp ni ki jiite woon xareb tubaab bi la mu bind wares na caa mën a sukkandiku amul lu ko war a gën a leer ndax moom moo xeex moo teewe moo ko bind ci bisub xeex bi itam kon euh, ñetteelu xaaj bi mooy doon jëmmi xareb déqale bi ñeenteelu xaaj bi mooy euh, procès verbal bi nga xamante ni capitaine Walwa ma jiite woon xare ba bind na ko ngir nettali xare ba na mu deme mu mel ni boo dee xool dafay ñoom tubaab yi doon xeex ak Lat ndam ya nga xamante ni séeral nañ ko ko dafa am ay sénégalais yu jóg bëgg koo wet weddi bëgg sos meneen mboor moo xamante ni wérut te it nag defe naa ni tubaab bi jiite woon xare bi xeex ak Lat Joor ba Lat Joor daanu kenn munta bind walla nga wax lu gën a leer moom ma nga xamante ni moo tee woon xare ba te la mu koy la muy bind ba mu koy bind booba ñi faatu ci xare baa ngi tëdd kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dox daje nag ci ñetteelu pàcc bi troisième épisode bi mooy jëmmi xare déqale waajtaay wa ba nañu tàmpaloo ba ni la joor daanoo bu ko defee nag incha allah xaaj bu mujj ba ma indi leen rapport wala procès verbal bi nga xamante ni capitaine Walwa ma doon xeexal Lat moo ko bind kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaax rek yéen ñi abonné gul ngeen abonné ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen man ko jot ndax li sunu yéene de mooy xamle sunu démb ba kenn ku nekk xam fa ngay taxaw xam réew mi na mu meloon démb xam sa démb dana tax nga mën a Euh, saytu sa tey kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci seen beneen émission xam sam réew waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamuur yi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise taala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar waaye faraanse lan na gooru sénégal ñi ñu dugal ñu dugal sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu i cere fi soose yóbbu gabang boole koog baraama tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse def ko ci biir nag ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu buukar mbokk yi ànd ak ñun ci seen chaîne bii di xam sam réew TV dellusiwaat nañu fii fas yéene ànd ak yéen ci seen émission xam sam réew di émission boo xamante ni mën nañ ko def ci jëmm walla barab walla ab xew-xew ñu dooroon ak yéen nag xew-xew boo xamante ni ñëwoon nañ ci ci ñaari pàcc te mooy xeexu walla xareb deqale kon dañuy nuyu di ziare bokk yi nga xamante ni fu ñu toll ñu ngi ànd ak nun moo xam ci xëtu Facebook bi la walla xëtu Xam Sam Réew TV walla xëtu YouTube bi bokk na ci ñooñu Ale Fall di ku mboor ñor waye pap Ndaw momit diko di ko xamante daf ko ñor lol fu ñu tollu ñuy rafetlu li ñuy def di and ak nun donte amna ñu may wax naan ma dañoo bëggoon boo tàmbalee tee rek nga ñëw ci li la tax a jóg waaye da ngay perdre ay trois minutes ci ay nuyoo ak ay ziara ma di leen xamal ni pour respect par mes téléspectateurs ñi may seetaan du ma ñëw rekk wax li may wax dem ndax nit ki buy wax dafay soxla ñu koy déglu kon ñiy rafetlu li ñuy def di ko ànd ak nun ak saa njañse muy ñiy commentaire faw nu ziyaare leen nuyu leen doog a tàbbi ci liggéey bi kon sëñ Pam Ndaw dañu lay jébbal ak sëñ Ale Fall ziyaare bi jëm ci lépp mboorum wolof waaye cosaanul Sénégal di ay kippaango yoo xamante ni bii ci Facebook bi la nekk bii nekk ci WhatsApp bi waaye ñuy rafetlu li ñuy def ziyaare euh, cosaanu Sénégal dañ koy jébbal rek euh, Jawdin Amadou Baxaw Diaw ak Serigne Omar Seck Diaw nekk ca New York kon ginnaaw nuyoo bi ak ziyaare yi dañuy ànd ak yenn nag tey tabbi ci xare bi walla xeexu déqale waxoon naa leen ni tubaab yi ñoo doon jàmmarloo ak Lat ñoom ñooy bind nun defuñu lu may nettali li nga xamante ni tubaab yi moom lañu bind ab journal la ngi nii ñu doon ko wax le temps mu gënoon ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn muy 1886 foofu itam ma ci jéggalu ndax ginnaaw bu ma dégluwaatee ñaari épisodes yi jàll su may indi lël bi ci wolof ay njuumte yu day war def ci am <laughs> traité euh, kër Amadou Yàlla bi maa ngi dégg fu may wax naan fukki wan ci weeru sattumbar ci atum junni ak juróom-ñetti ak juróom-ñaar fukk ak benn te juróom-ñaar fukk la ak juróom-ñeent mel na ni xareb euh, euh, ngol-ngol beet am na fu may wax atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett te déedéet la ci weeru décembre wa atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett loolu moom ñi sant loo dañ ma koy jégal yàlla bu tabaski gi moo euh, taxoon kon fépp foo ca xamante ni dégg ngeen ci ñaari épisodes yi jàll ma wax fi loolu rek na ngeen xam ni eh, njuumte la kon weer ginnaaw xeex ba walla weer bu manqué ñaari fan ab journal la nga nii dinu nettali le combat de Dékheulé te yaakaar naa ni series noon nag dafa am solo lool journal bi dafay wax ni ñu ngi nuy bind ca Ndar ci Sénégal ci fukk fan ak ñett ci weeru novembre di wax ni sunu njàmbaru soldaar yi tax na ñu bom kajoor te ñàkkunu soldaar yu bari ñeenti espace lañ ñu faatal mooy li ma doon wax ni leen tubaab yi bu ñu leen faatalee téeméer ñu ni ñeent la ndax dégg ngeen journal bi ci tàmbali bi nee

ci gàttal ñu ni nag kajoor léegi jël nañu ko annexé nañ ko maanaam euh, annexé wuñ ko waaye dañ koo séddale def ko juróom mbenni tund léegi kajoor wéeru na ci kaw France ñu ne nag léegi jàmm ak dal am na ci kaaraangeel yaxantu yi muy sécurité commerce entre Ndar ak Ndakaaru ñu ni nag ci faatu Lat Joor bi nga xamante ni notre ennemi inventerait waxoon naa leen ni duñ ko tudd mukk di wax ci moom lu ñaaw façon yii rek lañuy wax ci sunu sunu noon bu yàgg bi sunu noon bi nu yàgg bañ ñu ni nag sunu noon boobu faatu ak faatoom colonie bi yëpp a ci am mbégte ñu ni nag mbégte mu nga xamante ni mën nañu wax ne ñoom ñëpp am nañ ko ci faatu la Joor